Fara Ndiago or wala Ndiago përëm bi kooku Fara la depuis mu bëree bëree gisuñu ko fi naa la. Ah, fay nañ la Idi waaw di nuyu di nuyu ñëpp di wax ginnaaw bañ sant yàlla di prier si Yeesu Kirista di ñaan si Mariamu seel wi di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm sama yaay di gërëm sama yaay xam nga di gërëm waa Parcelles Assainies 1 26 rawatina waa 19 waa jox di jël nuyoo di ko teg si loo xaar yi ñoom Idi xam nga gaa yëpp noonu la demee nag ñoom Adama booy woyee di xam nga ñoom peñew ak ñoom meer laax noonu la demee nag. di gërëm ah, waa waaw ñoo ngi nii rek nekkaa suñu ruq nekkaa si liggéey bi comme noonu rek kon jaago bu ñuul bi rek comme noonu yaa ma gën a xam billaahi. nga jógee si journée. sa diggante ak Seck Ndanaan wàccaay bi nan la. waaw kon ni nga ko doon waajee rek mais bi da see raw quoi parce que ñun liggéeyuñ ndax Seck Ndanaan ndax làmb ndax carrière waaw boo liggéey doo liggéey pour benn combat mais tamit làmb itam gënoon tax ñu gën a rey suñu bopp parce que ki ñu doon rek ndellu maan la waaw noonu la demee nag waaw wax waaw waxkat la booy bëree waxkat da nga xam nooy bëree de ak nooy tërënee de yaa ngi leen laaw la ndellu maan la Seck Ndaanaan daa wax ba làmb xam ko Seck Ndaanaan cool li muy bari bëri est-ce que amul deux victoires eh. waaw hmm. ñu ne ñu ne ay ay preuve coow làmb moo ñu boole woon rek mais du làmb joo xam ni làmb palmarès wala dara parce que man ñi ma daan daanu leen ñi ma bëree bëriwul ak ñoom. ñi ma bëree bëriwul ak ñoom. ndax moom kan la bëree ko ma bëreelul ñu ma bëree ñoo gën a ñu bëreel moom yee coow li bëri xam ma làmb coow moo ñu boole woon ne mais du làmb ñoom làmb ju logique la parce que ñu ma mujjee bëreel rek yee ñun xooluñu ko noonu la demee nag. Seck si biir bëre bi à tout moment Franc da koy may wet. waaw noonu la demee rek anga moom dafa ñëwoon jàpp nii xam nga ñëpp yaakaar na Seck moo ëpp doole léegi ma ñëw ne. waaw dafa andi doole mais ñëpp dañoo jàppal moom moo ëpp doole ñaari yoon léegi ma ñëw pour weer ko waaw moo tax ma bëre moom noonu dama ko dama ko weer dama ñëw pour weer ko moo tax ma may bëre moom ay wet di ko may mi yegg bu mu daal def lu mu bëgg a def lépp mu pare ma ne ko nii la nii la ñuy daane boo yeggatee mbët nii nga koy def noonu la demee loolu ay. egg na sa sa wet gi plutôt la quatre fois yoo xam ne saa bu la fa yeggee da nga koy gën a sa tànk. waaw kon li ma la wax mos nga ma defa interview loolu yàgg na du tey di yow maa yow du tey maa la ma damaa école bi jàngale di jàngalaate bëre boo yi nga xam ne dañoo tële maa ngi si loolu ba léegi juguma si loolu moo tax nag dama ko doon wan nan ak naka la ma baax a wet gi mu bëre ba sonn ma ñëw ne ko nii la ak la nii la. maa ngi si. booy tëlee yëpp mooy loolu dama leen di weer de. Hmm. billaahi. nga jóge si sec. fi ñu toll nii Franc fan la jëm. waaye mëngali ne si làmb ji rek. Eh. mëngali lañ fee bari quoi. Ah, billaay naaxu mëngal ñoo fi ñan. dama leen di tudd seen tur sax. non bi nga demee ba am fitu ne lamb dafa ay mongol war ngaa am fitu ne diw at diw ak diw ñoom. non yéen a la demee nag man samay adversaire xaaj bi ne moom lamb. am na mongol yoo xam ne li nga wax. waaw am na mongol yoo xam am nañ lamb am na mongol yoo amuñu lamb. man instant bi moo fi laaj benn booy instant man ñu laa war a bëreel. Hmm. Bombardier Tapha ku daan ñoom laa war a bëreel. Ah. ma da nga wax nga respecté àdduna quoi respecté àdduna man boo suñ koñ daa gaañu waaye nga respecté àdduna. non dama dama fi laaj benn booy yi déggoo ma la wax xanaa ne si kaw laa war a bëreel. mëngal billaahi. say morom ñu ngi ci làmb ba. yan morom instant yi bombardier ak Tapha Tine ak laay simeekul jàkkaarloo ñu ma xam ne lii làmb la yeneen booy dama leen noggatu jàll. léegi booy yi nga war a noggatu ñan. non ñu noggatu naa ñenn ñi dañoo ñoo ngi sama ginnaaw ñu ne sama ginnaaw moom mooy loolu. ñu ne sa kanam ñoom. ñu ne sama kanam ñooñu dama leen tudd sax may bës. lan lañ fi def. loolu fi def. mais maa yóbbu coow làmb. am coow làmb. non mais bëri ma ak benn booy dëgguma fi sax benn booy nga may yablu quoi noonu la demee nag. dégg nga nangoo bëreeg booy. te xanaa kon sa dafa nekk si ñi si kaw ñu may la laa ku moom laa bëgg bëreel man kay li ma leer na nañ nekkuma fi di bëreeg benn booy noonu la demee nag ñooy laa fi ñoom ñooy bëreeg ñoom ma simé ñoo xam ne lii làmb la mais booy gis. ak nga ne sama sa xel yëpp dafa nekk si Tapha Gueye Tafa Gueye 2 non instant eh, Tafa Gueye 2 moom mooy loolu. quoi non non. dama taxoon yéen yi koo waxal man sama xel dafa nekk Tafa ma ne Tafa Gueye 2 benn grand frère boo xam ne dafa nekkoon si ñoom di may booy sens mais xamat benn Tafa Gueye 2 nii nii nekk fi ma jógee si ma demee bëre moom gars yi dinañ naan lii sax. jamono jooju ne woon da ngaa bëggoon may la. waaw mais jamono jooju dama doon a départ. mam lu ma def yaa ngi dégg léegi maam fu mu bëgg a toll ma xam ne Tafa Gueye 2 moom bëre moom xam nga làmb na gën a ràññee mais nii nii après dama leen bëre ñoo xam ñoo ëpp doole Tafa Gueye 2 dañoo mën lu Tafa Gueye 2 daan na ay ndaanaan de waaw daan na ay ndaanaan mais boo xooju Tafa Gueye 2 bu ñu doon may jéem loolu si loolu loolu yàgg na loolu yàgg na jamono yi loolu yàgg na mais léegi-léegi nii ko su ma la moom sa amateur dañu may jépp quoi parce que dañ naan dafa bëgg lu yomb. Tapha Gueye 2 daan fi ku ne. waaw daan na fi ku ne mais Tapha Gueye 2 xam nga rek man mooy loolu quoi. da nga maa ëpp lépp. da ngaa ju. billaay Tapha Gueye 2 maa ëpp lépp. billaay noonu la demee nag Tapha Gueye 2 mooy loolu mag la. instant su ma bëree moom sax gars yi duñ dem làmb ja dañ naan dafa bëgg lu yomb tamit ak fi ma jógee. da ngay Tapha Gueye 2 mag la sax boo bëree ñoom booy duñ dem léegi tëkkul ñoo xam ne wala nga tur fi ñoo xam ne bu say supporter dañu xam ne lii combat njarndeen ma lii combat a la. dama ne di tudd benn di fi tudd benn booy ngay am looy expliqué nii sax. booy de. bilaay yéen booy mëngali fi nekk nii ma maa hmm, ngi ñoom du làmm sax. bilaay du làmm. dama leen di nokkatu. Ah, boo yooyu nga bëgg a nokkatu. laa bëgg a xam ñan la. non non mëngali laa dul tudd seen tur di may bës. du ma ko def. mais daal l' essentiel bombardier ku daam nañu. munoo bàyyi bombardier ñoom am si contrat lañ nekk ñoom ñaar si contrat. Idy ñooñu laa war a bëreel pour ma wane sama bopp foo ma bëreeg ñooñu mais booy sax xanaa gisoo nu ma leen def dama boo di noosee fooy la ba doyal jàpp daan. am na booy yoo nooseegul. ñan booy. bari na kan la. xam nga ko xam nga ñi ngay wax de. xam nga booy yi fi nekk. yan booy bari na. non fii dama fi togg benn booy sax man la sumbaay nga am looy expliqué noonu la demee nag. Eh non Franc pour cooy pour wax ji bu na neex say morom xam nga leen jéem a laaj say morom da nga bàyyi Tapha Tine ak Bombardier. la njaaxu bu ñuul bi déggoo la ma kaju baa fi fees fi dell boo bëgg a bëri ma da ngay naan si kaju gi ba doyal soo ko bëreeg man. kaju bi laa la wax booy bëgg a bëre man da nga siy naan boo bëggee bëre man boo ko bëggul nag nga xool foo jëm kaju bu bees bi bu farax bi. léegi ñi ko ñi si war a naan si comme am na ñu jot a naan ba dem léegi ñi war a naan si nag. déggoo ñu bëgg bëre man dañ siy naan boo bëggee bëre man da nga siy naan boo bëggul bëre nag kon nga xool foo jëm de. ñi nga bëgg a bëre xaaral ñoom duñ naan. non ñu ma bëgg a bëre dañuy naan force noonu la demee. waaw Franc fi ñu toll nii bu ñu bu ñu génnee si cadre wax lépp na si làmb la ñuy waxtaan fi ñu toll nii Franc am na foo xam ne fi ñu toll mu ngi fa bëtam mi nga xam ne ñii ñooy ay naataangoom. non instant yi nii nii nii maam samay man man instant bëre moo samay morom de instant yi mu nekk ci bëre ñëpp samay grand frère lañ. kon yow Franc mbër kon la bokk boo xam ne dañ naan ñii ay moromu Franc mbër lañ. man ñi may bëre ndool ñëpp instant ñoo mok fop man dama teel a sob dugg si làmb rek man ba may dugg si làmb sama âge dugg si làmb sax jotagul. bi ngeen di départ yow la woon Gaynde Daaru Plateau Laurent Bombal. liiru bu ngor yéen a départandoo. waaw mais noonu la demee mais tamit ñenn ñi dama leen fee bàyyi quoi waaw noonu la demee instant maa ngi si kanam njaago bu ñuul baa ngi si kanam borom ma fi yaa fëgg dóor bomb yi noo ma meen daa saat yo ma ne ma niga sarde tiré karaakaj bomb bu xaayee ñoo na bu xamee baaxul man yee man tous man dara man nice su ma sangoo damay ñuul su ma sangul damay ñuul su ma tukkee damay ñuul su ma tukkiwul damay ñuul kon jaru may sangu xale yi nee nañ Franc Mbeur rek la ñuy topp comme leneen feneen na ko téye. ñaar ñi war a sëgg suba buñ tàqali ko. ñooñu la. non boole ma ak ñooñu ñooñu dama seen morom si làmb. da laa di doye. ñooñu def ay grand combat yow ko grand combat. mais bokk ma ak ñoom maa ñoom bokkuñu. bokkuñu dama bëre ñoom. kon léegi yow fan nga jëm. ponk lii rek baal bombardier ak tafatin waaw lu mu waa mbuur ak waa bawal léegi lu mënut a ñaax ba mënut a ñaax alliance bi moom mooy essence na ñëw ñu bëre Alliance Birame nañoo ñu bëre. waaw. duggoon na fi de. nañoo ñu bëre. na may sens. non loolu si dara loolu làmb la rek. waaw war a ñàkk la rek mais xam nga ni Ali waaw Bégaay du morom sax bëre de yooyu la. nga ne lu mënut a ñàkk la Alliance Birame na la may sens fan nga wékkul. na may sens maa moom làmb la. nañoo ñu bëre. bu ñu la seet si woon bu ñu toll nii Alliance Birame. état maa koy delloowaat si man man maa koy delloowaat si làmb man maa koy delloowaat si làmb amul lu wax alliance ba alliance ba kii biram man maa koy delluwaat si làmb na ñëw ñu bëre waaw. alliance biram. na ñeneen booy si des ñemewuñ ma ko waaw dama bëre ñoom. yeneen booy sax jël mooy tudd seen tur fii quoi parce que instant man maa ngi gën a baax position si làmb. lan moo tax Franc mooy sa digganteeg Boy nit ñi laam-laamee ko promoteur bi ku ne gars ku ne dox nañ ko combat mënut a taxaw. lu jot yomb ñu ay xale yee koo war a bëreel la ngay bëreel. te ngeen instant boo dañ leen bàyyi dañ leen bàyyi si yoon bi billaahi. dama laa seet ma seeti ko bëreegul. waaw. waaw ba léegi nii nii coow li muy bari bari bari ba mosoo ma ma ne ma wax moom ne moom ba léegi ma wax man noonu la demee nag man ñi ma bëgg bëree sax du bëree la yooyu noonu. moom yow nga daan moom mu jëm la la huit. non booy na dem bëre ay moromam rek man instant moo dama ko fee bàyyi quoi. xam nga rek adversaire yi ma bëreel ak moom adversaire yi ñu mooy loolu adversaire am coow laa bëreel. moom daal adversaire am coow lay bëreel. man adversaire yi mooy ñu mooy moom mooy bëgg a bëre ñoom mënul bëre ñoom te man damay bëre facilement kon tamit xam nga rek mooy loolu quoi dama ko fee bàyyi quoi mooy sama ginnaaw. waa lamb bu doxee ba nga ba nga soxla ko ba moom. lan lamb dox ba ma soxla ko. non mënul demee noonu man maay sama yoon. yaa ngi yàgg di ngeen na def ay preuve am na liggéeyaat ba rek instant mooy sama ginnaaw quoi. déggoo ma xale yi nee nañ topp ñu kenn comme leneen na nga ko téye gars yi nee nañ bu ñuul bi rek lañ bëgg njaago bu ñuul bi rek lañ bëgg gars yi bëgg ñu leneen comme leneen feneen na nga ko téye quoi gars yi nee nañ bu ñuul bi rek la ñuy topp su ma déggee sax lépp daal fi ñu toll nii alliance biiram ma mayee chance nañoo sax Cheikh nu demee la sax moo dama nekk si dinaaw di Cheikh nu demee a andiwaat sax làmb daa am nu mu demee sax moo dama génnul si làmb de déggoo daa am nu mu demee sax moo dama a bëre ak moom mais xam nga ne man booyoo noonu mu demee quoi moo dama bëgg a moom mais du ma ak moom sax du yoon sama koy tudd si si si micro yi nii barki yàlla. yaa bëgg mu may la chance kon di du ko tudd. daa am nu mu demee sax moo tax may wax ak moom nii sax. na la may chance kon yow yaa bëgg a daam ak moom alliance Birame. non daa am nu mu demee quoi moo ma bëgg a bëre ak moom. mais mais bu ñu demee noonu lan la. man maa ko raw si laamu sa bërëda boobu. bilaa maa ko raw si laamu li may fayeeku du ko fayeeku. la leer ne li ngay fayeeku du ko fayeeku. xoolal moom ñi mu bëreel. mais bokkul. noonu la demee daa ay séance sax moo tax ma bëgg bëre moom ah. mais du yoon koy tudd billaahi man xale laa damaa nekk su yoon booy bëgg bëre man da ngay naan si kaju yi boo jëlee sama waas da ngay naan boo ko jëlu da ngay naan wallaahi amul lu may wax ak moom na ñëw ñu bëre ñu bëre rek xoolal mooy loolu waaw na amul lu may ñaan man man man ma mën a bëre man ma mën a bëre ñu raw kooku yow ni mu demee sax moo koy tudd mais bëre boobu du yoon sama koy tudd billaahi déggoo lu ma la xanaa man xale bu ndaw laa xale yi nee nañ njaaxum ñuul bi rek moo leen ñor dara ñorul leen billaahi duñ doxaan duñ def dara ñun ay xale lañ ñun liggéey rek moo ñor billaahi mun suñu xam jigéen ñun entraînement léegi tëdd billaahi xale yi ñuy muñal leen léegi loolu ban message ngay lancé si si jàpp si combat bi nga jóge ak lan ngay tàggoo waaw mais noonu la demee waaw di gërëmaat ñëpp rek kon booy ngi fi fekk rek ñoom laa gërëm di leen sant parce que lépp ñoom la ko waa parce que suñu amee comment ñu amuñu ku ñuy jàppale ñun booy ñoo sonn si lépp ñoo siy jàpp si lépp si lépp ñoo gérer billet ñoo gérer lépp kon booy yëpp amuñu seen fay boo fi nekkee di tudd tur xam ma rek mooy loolu mais yow nuyoo di ko def si loxo xam ma booy gis ñoom idi xam ma ñoom ibu baaxum gars yëpp yee noonu la demee mais nag ñun am na ñoo xam ne sax ñoo ñuy xaw a taxawu ku waa si benn côté ku si mel ne grand ambourage grand njaga grand laay njaay maam góor xam ma jaago du yàpp di gërëm sama nijaay boobu gis naa coono si daj ak waa jeunesse Dakar yaa ngi dégg di jël nuyoo di ko teg si loxo xam ma prési xam ma ñoom seeku biyaay di si jàpp baax a baax combat gis nañ coono mi si daj ñoo koy sant di gërëm ñoom Albert xam ma ñoom ñoom mi mafiyaat xam ma Yaakuba Jool di jël di jël nuyoo di ko teg si si jigéen ñi quoi ñoom Sofia jeunesse Dakar maa ngi sant bu baax a baax di gërëm waa Grand waa quartier Ndiago Formose Mendy ñoo koy gërëm bu baax a baax l'international doomu Ndiago bi moom dereetu Ndiago rek moo ko ñor te wax Aline Cissé xoolal noonu la demee Formose daa kooku doomu Ndiago la noonu la demee nag Alioune Cissé yow laay waxal bëre boobu dafa war di départ kooku njaago la njaago yi moom deretu njaago rek ñor ñoo waa si làmb gis nañ coono yi man njaago bu maa lay woo quoi nga ñëw gën a jàpp si la demee nag parce que ñun deretu njaago rek moo ñu ñor France mel ni ñoo ngi lay waat quoi comme noonu noonu la demee nag di gërëm ñoom Adama Ndour quoi gars si jot a jàpp ñëpp ñëpp ñëpp parce que làmb dafa métti ñun ñu jàppale day am combat dañuy sonn du ñoom kuñ jëndal biir du ñoom yaa ngi dégg promoteur la bu ko neexoon day yem si place promoteur mais dafa bàyyi lépp ndax xam ma ndax xam ma ñu jàppale amuñu fooyam yaa ngi dégg ñoo ngi koy gërëm baax a baax di ko sant di gërëmaat ku si mel ni père ba waaw di ko sant gërëm di ko waat si laamu ji gërëm suñu ko si grand aada di gërëm ñoom maam Cheikh ñoom ñoom grand maam sa waa Salba di jël di jël nuyoo di ko teg si loxo ñoom Jeeba ñoom maam sa ñoom Ibulaay yi gars yëpp ñoo ngi siy jàpp ñun amuñu lu dul ñuy jàppale waa di wax mbëri xam ma rek am na mbëri yoom amuñu chance quoi parce que ñoom xam ne nii nii nii booy si bëre man nii yow tax amuñu chance parce nii yow tax amuñu chance parce que dañoo tombé sama mère amul gàlle quoi bilaahi booy moo tax mun ñoom chance quoi ñoom dañoo tombé sama mère amul gàlle day luwee moo tax yenn booy yëpp amuñu chance ku si bëre man da ngay waye nii su ma xalaatee sama mère amul gàlle rek yee yow noo mu di toll yow su ma la jàppee dama la bëgg a dem sama yoon parce que su bi amul gàlle rek mooy loolu bilaahi idi man sama yaay xale bu ndaw la mais boo moo moo boo ko jàpp boo ko gisee da ngay foog mag mais xale la bilaa ñun meer lañ bëgg a jàppale maire bi lañ bëgg a jàppale moo tax ñu ne si làmb di jaayante léegi booy di bëre man nag amuñu sensé eh. parce que instant yi maire bi amagul gàlle de te sama yaay xale la boo ko gisee da nga koy foog mag bilaa coono àdduna moo ko jàpp nii boo ko gisee mag koy foog mais xale la ñun ñoo ne si làmb di jaayante bëgg mu leer ko weer ak weer dafa gaaw tamit te maire bi instant yi mooy mooy loolu quoi war nam ñu ko aaw ñun moo tax ñu koy jaayante nii de bilaahi maire moo koy def si lépp noonu la deme nag di wax gars yi tamit ñun yoraguñ quoi des fois da ngay bëri tam gars yi yaakaar da ngay loolu jeex ñun yoruñu yaa ngi comprendre gars yi tam nañu teg loxo quoi ñun yoruñu quoi kon gars yi séntu si ñun ay millions te ñun yoruñu ay million quoi ñun suñu kese dañ koy rus sax wax si télé bi ñun gars yi ñoo si jàpp ni mafia bi ni ak gars yi ñuy dooleel ak waa diaspora bi ku si mel ni Remo quoi moom da siy jàpp ah waa Dimen production tamit ñoo leen woo di leen si làmb ji waa Dimen production yéen it ñoo ngi lay woo si làmb ji parce que ñun ay ko waaye doomu njaago lañ yaa ngi dégg ñun ay lañ ma yëg ñoo koy gërëmaat bu baax a baax waa di gërëm képp comme yéen say waajur parce que man sama yaay moo tax mooy sonn quoi weer gaaw sama yaay boo ko dayee woon fii da nga yaakaar mag la xale la coono àdduna moo ko jàpp ay 5 heures lay yeew ay 10 heures si këram xam nga ñun loolu ñu ne si làmb di jaayante dugg ñu si yéen nii quoi boo gisee dox dugg ñu si yéen nii di ko jaayante nii maire bi moo tax moo tax booy di bëre ñun amuñu sens quoi parce que tamit ñoo ngi bëre man tamit sama gàlle sama mère amagul gàlle gars yi tamit xam ma ma tamit mère bi amagul gàlle tamit pour mos meen ni tam gaan gars yi dañ see war a jàpp terrain yi gars yi dañu see a may bari sëñ ba ma gaa ma xam ma mère bi dafa waroon fu mu dëkk instant bi booy yan booy ñoo si a nii quoi bu mère bi amee gàlle yéen booy nañ am sens mais en tant que mère bi amagul gàlle booy si bëre man dama lay nokkatu man sekk naa at bi dafa ciblé la ma xalaat maire bi amagul gàlle billaahi maire bi ñoo koy ñaaw baax a baax yaa ngi comprendre billaahi di ko ñaaw gudd fan wér gu yaram di ko wax yàgg-yàgg day jeex gis nañ coono ba nekkee xale sekk naa bu at bi dafa ciblé ma xalaat maire bi amul gàlle ma ne ko ma ko saa waye di nga maire bi amagul gàlle de laay leen laaw lu garaaw laa keroog kër Masaar laa demoon ku waa romb foofu noonu gaan gis seen ay étage dama ma xam ne ma jaayante war naa see mun am billaahi ma tax instant yi booy amuñ sensé instant njaagum ñuul kuy bëre moom te maire bi amagul gàlle a ah, noo mun ti toll da ngay muñ Franc jaajëf billaahi di gërëmaat ñëpp maire bi amagul terrain amagul dara weer ak weer dafa gaaw billaahi idi damay da lu garaaw billaahi damay dox si mbedd bi sax di tourné di yaa ngi dégg damay dox si mbedd bi sax di tourné di téen étage yi gaan sama xol di jeex quoi su ma xalaatee mbedd bi amagul gàlle rek mooy loolu. gaan ñun la picc yi defal nii booy daf leen nii. picc yi picc yi picc yi waaw. suñu avance ku ko jël dañuy talpa pipi paramba. Franc bu amee làmb dañuy naaw nii la ñuy def dem stade nii baa nañ jël kar ñëp ay màbb dañuy naaw ñëpp ñun la picc yi ku dee xam nga boobu la wax ku dee sa yaay juraat ku dee sa rakk juraat ku dee sa rakk mooy juraat sa rakk sa rakk mooy juraat waaye di gërëm ku si mel ni xës ku waa xës xës ñoo koy bëgg bu baax a baax di siy jàpp di gërëm ku si mel ni alaaj Seexu booy di gërëm ku si mel ni alaaj Seexu borom marché Gueule Tapée gis nañ coono mi siy daj waa dal jaam indi treize jël nuyoo bi di ko teg si loxo ñoom Pape Arafa di gërëm Aliou Dramé borom marché Dior gis nañ coono yi quoi di gërëmaa sama mbokk Saloum Saloum yëpp rek gis naa coono yi gis naa ñaan yi leen gërëmaat bu baax a baax di la sant di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan ñëpp jàmm di gërëm mafia tibu sotti sama mbokk mboor mboor Idda maa bëgg lii nga dugal maa ngi sant bu baax a baax di leen gërëm billaay noonu la demee nag waaw di wax gars yi tamit njaago bu ñuul bi amagul kër quoi amagul terrain billaay dañoo am combat yi taxawaal si fu ñuy dem ay carap la ñuy yëg tamit noonu la demee nag waaw bu boobu waaw naka gars